sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéeyal liggéeyal wajjahtu kulliya bi hamdin wa sukur ila waliyil mu'minin wa sukur wajjahtu kulliya bi hamdin wa sukur ila waliyil mu'minin wa sukur a'udhu billahi minash shaitanir rajim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 yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu qadimu man sumaatuhu muhammadu bismin ilahi wa huwa arrahmanu wa huwa rahimun qaada lil amaanu mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak seen mbokkum taaliba cheikh njaay gànna ci jamonoy sancub tuuba mas nañoo andil sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaara lahu haddiya ju mu jox ko sëriñ ba ndumbe radiyallahu taala anhu ne ko suulal ma ko mu suul ko fii barab bi nekk bi sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaara jullee tisbaar ba sëlmal ne ko ahmadu xanaa la ma la suulloo woon suuloo ko déggoo yooxoo mi noonu mu ne ko déedéet mbàkke ñu ànd dikk ba fa mu ko suul te mooy fii jumaa ji nekk sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaara la fa ko sullil te dem ba ca ginnaaw xàllu jolof wa nga suul ko fa te dellu si fekk ma fii bi mu ñëwee sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu ne ko pax mi suulaat ko mu suul ko sëriñ bi ne ko xanaa xamoo ne asamaan sépp ñaari bunt la am benn baa ngi tiim kaaba ga benn baa ngi tiim fii ahmadu mu ne ko mbakke sunu borom subhanahu wa taala bu lottoon bay wut dencukaay fii nga taxaw la koy def yàlla nag deful kuy lottu bay wut dencukaay bu muy fàkkandikoo ngir ëllëg ahmadu mu ne ko mbàkke liy seerees loolu mooy fi la wàcce ahlu badar rot na fi maanaam takk na fi ahlu badar te duutu leen tekki mukk te taxañu ñu dënd bi ahmadu mu ne ko mbàkke lu ngeen bëgg di ko wut ndara ngi Dakar diir bu gàtt na ngeen rombanteeg moom fii te du ngeen ko faale ahmadu mu ne ko mbakke atteeb jamono jépp itam dikk na fi fa jant ba di fenke ak fa muy sowe dana mujj lu ñu fii atte te dikkuñu fii atte boobee du wéy ahmadu mu ne ko mbakke liggéey bi ma fi liggéey lii tam nit dana bàyyee ko Makka ak Madina ak mbooleem réew yi ngir di xool si liggéey bi siiw na wallaahu aalam sëriñ bi doon sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal